sénégalais bu nekk mun na ko am. Mhm. jëwriñ kon yaakaar mën naa am. yàgg si nañu presque ci njeextalu waxtaan bi xam naa ne ñàkkul commentaire yoo mun a def ci li imaam euh, yëkkati fii. waaw imaam li muy wax dañ koy confirmer rek que euh, loolu mu wax ci potentialité yi Sénégal am. Mhm. kenn euh, nattable wu ko. dañuy ñuy nattable kañ Sénégal mooy ay njiit yu baax te jub loolu moo doon. moo ñu manqué woon jafe-jafe sénégalais. Mhm. donc. comme euh, bokk na ci choix bi tax ñi tànn euh, Pastef mm-hmm. euh, et des nouveaux dirigeants pour rupture am mm-hmm. loolu moom moo tax ñu tànn ko li nga xamante ni moom laay wax rek mooy que ni xam nga sunu borom ba mu defalee doomu aadama wax malaaka yi ni dama koy wàccee ci kaw suuf mm-hmm. malaaka yi dañu ko ne ko dem da wàccee koo xamante ni day seme crime ak corruption ci kaw suuf te Sénégal corruption dafa dem dans tout les niveaux religieux et euh, et politique donc kon purification bi ça doit être quelque chose d'absolu à tous les niveaux il faut combattre la corruption dans tous les niveaux te su boobaa il faut que peuple bi yëpp laxasaayu ci pour mën ko pour mën ci conscientiser que ni euh, li nga xamante ni moom laa doon euh, ci participation parce que imam euh, rôle am du jiite juróomi waxtu ci jàkk ji rek itam imam c'est un acteur aussi un peut être un acteur économique et social mm-hmm. parce que gox bi nga xamante ni jàkk ji fa la nekk euh, war na mën a nekk refuge pour képp citoyen bu nekk foofu mm-hmm. imam war na xam sa situation mm-hmm. imam war na mën a dox sa diggante ak le maire imam war na dox sa diggante ak l'administration parce que ñoom ñoo gën a jege société bi l'administrateur mhm. donc rôle am na euh, dépassé na rek euh, jiite jaam yi ak tudd tudd doom yi ak mhm. jullee néew yi mhm. tu vois et puis je vois que ni aussi jàkk yi Sénégal seen euh, seen utilité dafa des ndaxte jàkk yi bu ñu xoolee juróomi waxtu yi rek lañ fay julli mu jeex mais jàkk yi normalement waroon na am des mm, des écoles loo xamante ni quartier bi ku fa nekk boo bëggee jàng sa dine war fa mën a dem war fa waroon a am bibliothèque. Mm. war a mën a am café. Mm. war a mën a am espace boo xamante ni. Euh, même resto café mm. café resto pour que gox bi mm-hmm. war na am boo xamante ni boo bëggee augmenter sa culture euh, war nga fa mën a dem pour mën ko yokk dëgg la tu vois donc euh, kooku tamit xam nga jamonoy Amadou Ba jotoon nañ fi dégg xam nga kii dafa ne suukaru koor yi mais mm-hmm. déedéet ci dégg nañ ay imam yu taxaw daal ne Amadou Ba xaar bi ñu lay xaar moo tax julli wuñ tisbaar takkusaan timis gee xaw ndax imam déggoon nga loolu déet quoi ah am na explication am na explication waaw kon jàppale ñu nga expliqué ci nopp citoyen yi dafay nekk loo xamante ni euh, neexut a dégg daal parce que comme <laughs> dafay dafa rëy dëgg la am na explication waaw dafa rëy j'aimerais bien nga expliquer ñu loolu parce que c'est c'est mm, mm, mm. le moo tax dama bëgg saa su nekk imam yi gëdd bi ñu leen war a jox vraiment ñu jox leen état jox leen ko quoi vraiment c'est important di au lieu que imam yi di laaj euh, di laaj ñu leen ni comme ni nga ko waxee mm. léegi parce que ñu leen à l'abri du besoin tu vois euh, war nañ mën a dem ba nga xamante ni quartier bi ku fi nekk xëy amoo loo taal sa kër war a mën a dem ci jàkk ja hmm. wax ak imam bi imam bi jàppale la ci loolu que imam bi di xaar hmm. euh, maanaam société bi di ko jàppale donc euh, pour man noonu laa ko gisee mais comme ni nga wax nii loolu hmm. explication boobu bëgg nañu xam très bien <laughs> <laughs> xam naa imam jeexale euh, donc ay leeral ak xëy na li nga bëgg a tëjee waxtaan bi waaw li ma bëgg a tëjee mooy confirmer déjà li mu wax ci rôlu jàkk am na dëkk yu bari boo fa demee tey di wax dama am daara dañ lay wax ni ñun xamuñu daara mooy lan <laughs> ñoom li ñu xam jàkk la xam parce que jàkk mooy joué rôle boo demee ci euh, yenn réewi lislaam yi euh, xale yi bu ñu xëyee dañuy jàngi école 14 heures la ñuy wàcc ba ñu wàccee dañuy dem seen kër añ sieste cinq heures ñoom ñëpp ñu ngi ci jàkka ji jàkka ji moom mooy daara ji <laughs> bare na ñooy gis ay imaam tey yu mag ci àdduna bi ci système boobu lañ jaar parce que seen jàkk école. Mhm. mooy seen daara en fait seen jàkk koñ. mooy seen daara fa la ñuy jàngee. c' est l' institut en fait mën na nekk sax euh, un complexe. ñun am nañu benn modèle. Euh, bu ñu war a def ci proposition parce que quand même ñi ngi wax boobu ba léegi formalisation des relations entre l' état et la religion. Mhm. Euh, ci wàllu l'islam bi am na ci biir document bi ñu préparé lu ñu tuddee le concept de mosquée complexe. Mhm. li <laughs> njëriñ wax ci lan la jëm. mooy jàkka joo xam ni day mën a am centre de santé day mën a am centre de formation day mën a am école day mën a am daara ci biir lépp fay daje imam bi mën a nekk sax un directeur de de complexe socio socioculturel su boobaa euh, day tax euh, gëdd bi ñu ko war a jox ci société bi mu gën ko mën a jouer ndax yamul rek ci julli yi gis ngee la justice de proximité dama am sama benn mag mm. bi mu nekkee Euh, SG à la cour d'appel ñu ni ma dañ dem di def euh, ay benchmarking dans un pays de l'Amérique pour xool nu ñu war a doxale justice de proximité mm-hmm. ma ne ko mais yow mais yéen yéen ñu tooñ parce que ñun dañu amoon fii justice de proximité mm-hmm. koñ boo ci dem bu fa problème amee mm-hmm. c'est le délégué de quartier et l'imam ñoom ñaar la ñuy interpellé sëy yeeg ñi te seen waajur rek euh, dëj yéeg yëpp ñoom la ñuy interpellé donc ça c'est une justice de proximité ñaari dëkkandoo yu am problème dañuy wax délégué mu wax imam ñu ànd ñëw réglé ko donc on avait une justice de proximité mm-hmm. léegi nag loolu euh, la ñu war a gën a organiser waat rek ñun def nañu benn initiative en 2016 euh, ànd koog euh, mairie Guédiawaye ak ay partenaires technique mm-hmm. ci ni ñu réorganiser les quartiers mm-hmm. def ay conseils de quartier yu am yu am yu am mission nga xam ni imam bi ak chef de quartier bi ak bàjjanu gox bi ak représentant des jeunes représentant des femmes ñoom ñëpp dañuy ànd dafa leen benn collège boo xam ne lu xewati ci quartier bi ñoom ñoo koy discuter ba ci xale yi jàdd yoon ak ñiy dox lu ñu war a dox ak ñiy def kii loolu bu amee ñu mën koo porter ñoom dox ci li ñu war a dox ci côté euh, famille bi mm-hmm. bu ci amul solution ñu ànd ak autorités yi ñu régler loolu mm-hmm. loolu def nañ ci benn euh, liggéey boo xam ni euh, archive yaa ngi fi bëggoon nañu mu gën a tasaaroo donc jàkka rôle am mm-hmm. passé na rek julli juróom c'est un rôle de complexe socioculturel dafa dañ ko war a jox dayom boobu loolu ñun ñu ngi ci liggéey nañ ci def nañu concept bi war nañoo sax dem ci architecture bi war nañoo wax ah architecte yi ñu liggéeyal ñu ba xam modelu jàkk bi nu muy mel bu ko defee ñu proposé ko imam yëpp ñu proposé ko seen i quartier état bi nag mën naa appuyer su boobaa la réalisation pas financée à 100 pour cent parce que état bi aussi ses budgets sont hmm. sont limités xam nga état bi budget bariwul budget mi ngi jëm ci ay waaw mi ngi jëm ci ay ressources mi ngi jëm ci ay euh, impôt taxe ba loolu bëgg a xoolee bariwul sur un PIB de vingt cinq milliards de dollars. Euh, euh, waaw dëgg la yooyu sax ay bor la ak yooyu xam naa buñ duggoon ci <laughs> buñ duggoon ci domaine finance publique bi dana gën a compliqué en tout cas yu ci bëri ay bor la yi ay don la mm. mais euh, état xaalisam bëriwul bon mm. wax naa léegi ne c'est vrai amul lu ñu koy santé ci li mu def parce que ñu ñoo ko jox suñu alal mm. mais li ñu koy jox suñu alal tuuti la li ci des yëpp ñoo ko moom sur vingt cinq milliards de dollars de PIB pour le Sénégal li ci état bi encaissé xëy na euh, matul euh, matul 3 milliards de dollars boo ko doon xool donc pour dire que le reste nag sénégalais yi ñoo ko moom. mooy commerçant yeek opérateur yeeg homme d'affaires loolu ñu am ñun. te am yu ñu gëm nañuy génne ci li ñu am di ko def ci li ñu gëm. bu ko defee loolu euh, complexe bu ñu ko taxawalee. état bi mun naa financer xëy na benn fonds d'impulsion. pour premier séminaire yi fay am ak première information yi ak yooyu waaye la koy tabax. na ko waa dëkk ba jël en charge te loolu mën naa nekk bu ñu ko jëlee en charge. la muy jouer comme rôle ci quartier bi di ko générer ci ay ressources sociale loola mën nañ cee entretenir lu ñu bëgg a entretenir ci quartier boobu su boobaa day nekk benn modèle économique boo xam ni euh, mën nañ ko dooleel mhm. mu am lu mu réglé lu bëree bëri ci réew mi imam yooyu nga wax nag nga xam ni mhm. ñoom euh, euh, seen kàddu googu <laughs> dëgg la man dama ko déggee kàddu mag rek xam nga maa wax léegi ne information dafa am solo ki leen doon jotalil moo leen tooñ <laughs> waaye ñëpp xam nañu imam du toog tisbaar raw ko tàkkusaan roo ko muy xaar ab politicien li mhm. mu mën a li mu bëggoon wax rek mooy julli wuñ suñu jàkka yi d'accord demuñu julli ji suñu jàkka yi mhm. waaw c'est ça fii lañ jullee ah, fii lañ jullee tisbaar fii lañ jullee tàkkusaan ki doon jottali nag xam naa ni moom moo tooñ imaam yi mais kooku li mu def noonu war ko woon def kon daal euh, euh, euh, ñi ngi woo askan wi yëpp. mais question bu ndaw waaw mais est seen bi. Mhm. Ah, ça couvre toutes les imams du Sénégal ou ay fakk na ay am na yeneen ligue wala yeneen. waaw mënoo mënoo fi am benn mbooloo boo xam ni initiative privée la. buy couvrir ñëpp parce que lig des imams loo ci mën a dégg initiative privée la. association nationale. si c'est national c'est-à-dire am na dans les quarante cinq départements du Sénégal. ay membres yu fa nekk am na ci département yoo xam ne am na ay cellules yoo xam ne samp nañ leen ba pare xëy na sampaguñ dans les 45 départements mais dans les 45 il y a partout des membres euh, waaye mënul euh, daj ñëpp parce que l'adhésion est volontaire ku bëgg a ñëw bokk yaay bokk bëggut a bokk doo bokk. est que doo am ay opposants imam oh. waaw waaw loolu loolu loolu du ñàkk parce que la affaire su léegi Sénégal li li tax ñu am 300 partis politiques. moo tax ñu am euh, des milliers d' associations. <laughs> moo tax ñu am ay association imam yu bari mais loolu yëpp li koy wane mooy dafa am institution bu am solo ci réew mi bu tudd imama hmm. euh, bu état bi pour une conception de la laïcité exclusive d' ailleurs moo tax ci assises nationales yi liggéey nañ sur une laïcité inclusive mooy naka la laïcité jëlee en charge la dimension spirituelle de la nation euh, Allemagne c'est un pays qui n'est pas qui n'est pas musulman hmm. mais le culte est pris en charge par l'État. Par l'État, foofu laa doon waxee sànq. C'est l'État qui prend en charge le culte. Il y a des taxes qui sont euh, imposées aux adeptes de chaque culte. et que loolu la ñuy jël di dimbali le culte. mais xam nga foofu yéen vous de laïcité allemand. oui modèle de mais bokkul. c'est-à-dire moo tax ñun ñu jàpp ni heureusement démb bi ma dégloo le président Bassirou Diomaye bi mu demee Tivaouane. wax na loolu il a fait cette précision là. que ñun laïcité bi ñu jàpp. bokkul ak bi xeex diine. laïcité bi ñu jàpp mooy dafa war a jàppale diine effectivement. et financement culte bi ngay wax sax Ousmane Sonko théorisé na ko bu yàgg. nekk un budget dégagé boo xam ne dañ koy sóoraale ci alalu askan wi. muy dem ci wàllu diine. xam naa euh, euh, du ma bàyyi mu jàll parce que dama bëgg koo régler ci benn kii mooy l'islam euh, am na ñu jàpp ni sax c'est laïque mais l'islam mënta nekk laïque parce que laïcité mooy génne xëy na. lu ñuy tuddee référence religieuse ci euh, gestion de l'État mm-hmm. loolu mooy une forme de laïcité d'ailleurs c'est euh, purement la laïcité française mm-hmm. am na laïcité bu gis nii le culte mm-hmm. c'est une demande sociale c'est-à-dire man askan yu ma jiite ñoo soxla am imaginaire ak croyance yu ñu gëm di ko topp loolu ñu gëm man dama leen ci jàppale et la constitution parle de ça okay. que les communautés s'organisent et bu ñu organiser l'état daf leen jàppale. alors euh, l'islam ci dimension yi muy aborde askan xëy na foofu la Ndiass bëgg a waxee mm-hmm. laïcité mooy forcé wul kenn ci mu gëm. Mm-hmm. yàlla. Mm-hmm. waxul kenn gëmal. par force. dafa ni dëgg gaa ngi nii. man sama marchandise dafa leer. mooy dëgg gi. ku mu neex nga gëm. fa man caa fal yu'min. wa man caa fal ku mu neex nga weddi. loolu. c'est une dimension coranique. Mhm. yàlla dem ba sax wax ak yonent bi ne ko ñi weddi nii bu mu la naqari. Mhm. yow di nga dem bay naqarlu sax ci ñi weddi pour la ñu weddi. laallaka baaxi'un nafsaka allaa yakuunu muminiin yàlla bu ne in nasha nunazzilu alayhim min as-samaa'i aayatan a vallat a'naaquhum laha xaadi'iin ñun bu ñu neexoon ñëpp gëm. yàlla bu ne bu doon su ma neexoon du am ku ma weddi ci kaw suuf. Mhm. man maa bëgg man yàlla. mu am ñu gëm mu am ñu weddi. ñi weddi nekk ay défi pour ñu gëm. ñi gëm di sant yàlla ci bu xoolee ñi weddi. mais bu dee aspect boobu. aspect bu xóot la waaw. imaam xam nga mhm. yonent bi dafa bëri woon ay mbubu. Mhm. am na mbubu yonent. Mhm. am na mbubu euh, comme gouverneur. comme homme d'état. comme homme d'état. te yàgg na bon di euh, l'islam di dugg. ay dëkk yu dugg ci lislaam mhm. yonent bi di ko gouverner mhm. mais ba mu fa fekkee fekk na les différentes formes de culte mhm. te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dala bàyyil sa droit de culte ba pare imposer la ñu respecter mais boo demee ci euh, euh, wasiqatul madina pour te confirmer uh-huh. yonent bi mu ñëwee madina dafa fekk ay juif waa aws waa xasraj fekk fa ay euh, kuréel yeneen ci ay banu Qaynuqa fekk fa ay. aw sa xarit sax ñoom ñoo doon jullit ñi. waaye fekk na fa banu Qaynuqa banu Nadir fekk na fa ñeneen. dafa def ak ñoom wasiqatu Madina mooy. benn euh, protocole constitution de Médine boo xam ni dafa wax ni ñun jullit ñi. ak yéen juif yi ñu constituer une même communauté. loolu boo demee ci wasiqatu Madina da nga ko fa fekk. ñoo bokk dëkk bi li parce que ñoo bokk dëkk bi. ku ci nekk nag. dinga def li ngay def sa wàllu diine. Mm-hmm. waaye lu aju ci wàllu aar dëkk bi. ak defar ko ak defar dëkkandu gi ak lépp loolu ñoo ko bokk mu signé ko mu nekk ci benn kayit mooy wasiqatu madina donc euh, aspect boobu effectivement yonente bi alayhi salaam joué na rôle yu bëree bëri yonente la gouverneur la per de famille euh, la général de guerre la donc am na dimension bu nekk boo ko jëlee mm-hmm. da nga gis c'est l'homme d'état accompli comme yonente bi sallallahu alayhi wasallam euh, di nit l'homme mm-hmm. grand tâche accompli di le prophète accompli donc loolu yëpp boo ko ci xoolee. da nga ciy gis loo xam ni lu xóot la ci moom. muy côté xam nga yàlla mu ne maa créé l'homme ba pare inspiré ko. Mm-hmm. comme ni may gouverner. Mm-hmm. moment boobu autant royaume moo doon am. Mm-hmm. mais dafa am moment boo xamante ne gars dindi royaume indi république. te royaume ak république bokkuñu ni ñuy gérer communauté. xam république moo indi liberté ak démocratie. te boo xoolee dëkk jullit ñëpp problème bi ñuy am mooy fan la ñuy situer liberté ak démocratie. <laughs> waa question de euh, question philosophie xam naa temps du ko maye. am naa réflexion yu gën a yaatu ci loolu mais. mais mais mais mun nga ci indi mun nga ci <laughs> réflexion la bu am solo parce que man dama jàpp ni am na ay concept yu bees yoo xam ni. Mhm. Euh, doo gis lu ko safaanoo rek l'islam. lu mel ni république le concept de république mooy lu ñëpp bokk. Mhm. mais yàlla moo wax ci alxuraan ne maa yi ñëpp ngeen yaa ayyuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu nit ñi yàlla mu ni maa leen bind ci góor ak jigéen aadama ak aw yi ñëpp a yem concept de mooy lan mooy lii ñu ñëpp ñoo ci yem res publica ñu ñëpp ñoo ci yem ñoo ko bokk léegi nag si suñu organisation lañuy tànn kan moo ñuy jiite ak ñañ ñoo ñu jiite ak yan sañ-sañ la am ci ñun ak yan droit la am ci moom loolu moo indi ñuy xalaat ay modèle moo indi modèle monarchique ñu ni léegi est-ce que duñ jël rek boo comme dëkk bi ki ko sos njaboot sàngam la est-ce que duñ leen bàyyi rek ñoom ñu kon ne di gérer mu indi mu indi monarchie léeg-léeg mu am jikko yi am ci monarchie yoo xam ne amul ci amul ci démocratie parce que mm. monarchie boo ci demee ñaare ki jiite day am sentiment paternaliste lay am day mel ni mooy papay askan wi waaw dafay am ci ñoom sañ-sañ mais day am ci ñoom aussi yërmande effectivement nga dem ci réew yoo xam ni ki leen jiite mm-hmm. daanaka seen jaam la mm. pourtant buur lañ koy woowee mais boo xoolee ay attitude am mhm. daanaka jaamu askan wi la mhm. day jooy sax bu askan wi nekkee ci jafe-jafe mhm. loolu am na xëy na nag buñ koy doonu di ko doonante bu yàggee mën naa tombe ci loxo kàccoor su boobaa bu def ñu ko neex <laughs> démocratie la même chose démocratie mooy ñun ñëpp ñoo bokk sañ-sañ te ñun ñëpp mënuñoo jiiteendoo nañu waxtaan ñi ëpp ci ñun buñ ne kii mooy jiite kooku mooy jiite kooku nag dafa am ay devoir am ay responsabilité am na ay droit waaye bu liñ ko dénk boo jeexee jeex na dañ koy nangu. fan la problème di amee mu jiite ba yàgg ne li ma yor du ko joxee su boobaa nag askan bi ma joxoon <laughs> dal ci kaw. <laughs> moo tax am na solo ñu jàngat euh, système yëpp man gis naa monarchique bi am na lu ci baax am na ay inconvénients. les monarchies institutionnelles. Mm. c'est une forme am na lu ci baax am ci baaxul les démocraties. am na lu ci baax am na lu ci baaxul. mais tous les systèmes bu ci nekk mën nañ ko adapté ñun bi ñu am en tout cas baaxagum na. Mm-hmm. ndax Sénégal moom ñu baax ñu ko dëkkee. Mm-hmm. ñu fa ëpp ñu baax lañu. Mm-hmm. loolu lay wax may leen li ngeen di gis ci lu bon on l'appelle des faits divers. faits divers mooy lu bon bariwu fi. ok li lu baax moo fi.